abonné leen ci suñu chaîne YouTube jot saa su ne ay xibaar yu wér te wóor aju ci ci bitim réew. fu gën a baax ci yéen rek. C'est bon. Vous n'avez pas les regards. Ah. C'est bon. Ça, de vous. bon. Si c'est bon, on bon. Voilà, voilà, comme ça.

Parmi ces 58 975 parrains, nous avons eu que 200 parrains non valides, c'est-à-dire 200 parrains qu'ils n'ont pas trouvés dans le fichier. Cependant, on nous a notifié des doublons externes. Cela peut aisément s'expliquer parce que nous avons été un peu désavantagés par rapport au tirage. Nous sommes 90e sur 93 candidats. c'était les règles du jeu, nous, nous, nous l'acceptons. Et euh, je pense que rien n'est Parce que si on s'était la 30e place, je ne pas là à des, des, doublons externes. Bon, nous attendons la notification du Conseil qui aura lieu à 18h. La seule chose que nous déplorons, c'est le fait que les candidats qui sont passés avant nous avaient déjà l'information concernant le doublon externe, ils, pourraient, euh, automatiquement commencé le travail pour rectifier euh, les régions ou bien les, les, les, les parrains qu'ils Alors que nous, à la 90e place, on va nous notifier aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, on n'aura que 48 heures. Eux, ils avaient déjà l'information. Donc c'est la seule que nous, nous, nous, déplorons, mais comme je dis, ce sont les règles du jeu, nous, mais nous. quelle euh, euh, comme je vous ai dit nous avons déposé le maximum possible on nous a notifié à, venir régulariser. mais bon nous nous nous avions euh, prévu tout ça la 90e place sur 93 candidats vous vous doutez des des des c'est c'est c'est c'est quelque 14 000 14 000 il y a un gap de 14 000 qu'on devra euh, mais le point important euh, et, et j'en profite pour remercier et féliciter les militants et sympathisants de la République des valeurs parce que quand vous déposez 58 975 parrains et qu'il y ait que 200 parrains qui sont pas bons ça veut dire mais comme je dis le tirage au sort bon c'est du hasard ça ne nous a pas avantagé. Bon, on va aller encore euh, travailler et revenir. Inch'Allah, on parmi va ces passer... 200, 200 parrains-là, on ne vous a pas signifié de région Non, ils ne nous ont pas signifié. Bon, bon c'est certainement dans le procès verbal que je n'ai pas encore traité. Pas voilà. Non, nous, on n'a pas de problème de région. Mmh. On a un problème de, de, de, de nombre de doublons externes Et ça, la raison s'explique, euh, comme j'ai dit aisément, quand vous êtes 90e euh, sur 93 candidats, c'est un peu compliqué. D'accord. 14 000, on doit régulariser. Ah. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, je vais. Euh, voilà. Monsieur, monsieur va, va, va s'exprimer en li mu bëgg a wax ci olof lu simple la. da ñëwal ñëwal tuuti. tur bi présenté wu d'abord. micro uh-huh. baax na c'est bon. ñëwal ñëwal ñëwal. micro bu gaawee ñëw mu baax waxtu julli bi jot na. Eh, c'est bon bon Ibra Amin bokk ci cellule cadre bu République des valeurs ñoo ñëw représenté maa ngi wax nag sous le contrôle de bon c'est bon su fekkee baax na ñu ñuy dem parce que yéen yéen a war a ajusté waat ngeen baal ma. c'est bon waaw ma ne d'accord ñu ngi ñëw ci turu candidat bu Thierno Alassane Sall. bu réewum ngor gor ñi moom lañ ñëwoon représenté si pour contrôle parrainage bi nga xamante ni mooy tax bokk na ci liy tax ñu valider sa candidature mu nekk pàcc bu am solo biir conseil constitutionnel li ñu fa jëlee sant yàlla lay doon ndax lu munti xew da ngay sant yàlla lenn loo xamante ne ñëpp déploré nañ ko mooy li nga xamante ni tey suñ demee ba Sénégal pour falu mu war a nekk tirage au sort loolu kéemtaan képp koo xamante ni képp koo xamante ni bàyyi ko xel naqarlu ko ci Sénégal dafa mel ni yow sa yoon nekkul ci lu bëri loolu moom ku ko naqarul parce que lu sérieux lu mel ni président de la république ñu bëgg ko samp di ko teg ci ay tirage maanaam amul dara lu tegu ci naka nga koy nattee mooy ñoo xamante ni déposé nañ cinquante ñu ne la ci moo baaxul kooku ci ordre bu mu nekkoon su nekkoon ci trente premiers yi jàll na su nekkoon ci dix fu mu mënti nekk jàll na ba pare du loolu sax mu nekk candidat bu sérieux Thierno Alassane Sall ku ko xam tey élection waroon am alhamdulilah bi nga xamante ne am nañ permettre nañ ñu mën a def deuxième tour ñu régulariser. élection bu doon am sans Thierno Alassane Sall bi nga xamante ne moo fi bañ bañ yu métti yi teg ngor di taxawu gor ñi loolu da doon kéemtaan mais alhamdulilah ñu ngi ñu woo ci wara euh, jubbanti du jubbanti waaye remplacer mille doublons externes. app bi 48 heures la. ñaari fan lañ ñu may pour ñu pour pour ñu pour ñu indiwaat ko ñu compenser ko ça veut dire am nañ possibilité déposer 28000 ci biir 28000 14000 yi dafa war a baax 14000 yi am nañ yaakaar ni dana baax lii suñu mandataire bi wax léegi nag lu jar a bàyyi xel la mooy yeneen mandataires yi yeneen parti ñoom bi ñu leen nee dañu war a régulariser boobu ba léegi ñoom jotuñu notification ci bisu tey bi ñoom la ñuy nar a jot notification ñu jotandoo ko ak ñun ñi nga xamante ni tirage bi ci ñu mujjee génn la bokk li doon li doon yoon mooy ñi nga xamante ne mujj nañ génn sax su ñuy defaat deuxième bu ñuy bu ñuy changewaat ñoo ñoo waroon jiitu pour lan ma wax loolu dañ la naan tirage la mais loolu mooy hasard waxu hasard la ñuy wax mais tey candidat yi nga xamante ne ñoo njëkk a génn ak ñi mujjee génn kan moo ci ëpp mérite teguwul fenn kon ñi mujj ci wàllum régular ñi mujj waroon nañ mën a régular su fekkonte ni dañuy toog lu yàgg notifié lu lañu su fekkonte ne ñoom notifié nañ leen ci jour biñ bi ñu leen contrôlé ci saa si ñu ne yooyu yëpp pour commencer kii waaye lu tax tiitaluñu liggéey ku gis ku liggéey 58 975 nga am 200 kii loolu waru laa tiital su fekkee am nga réserve ndax sa qualité travail di remercier bu baax parrains yi nga xamante ne ñoom ñoo ñu taxaw jox ñu loo xamante ne qualité la yàlla dogal tey lii mu dogal alhamdulilahi rabil alamin on est confiant li des mooy ñu jàll rek ci yeneen étape bi merci beaucoup ngeen jëf